asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah mardi 16 mille 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëgle kaay sunu làmb nag tey fa la nuy xëy doorati ko yëglekaay ba daal tey ba mu xëyee Eumeu Sène la xëy tey def ci moom ab taxaw seetlu Eumeu daal fi mu nekk nii mu ngi ci ay liggéey yu méttee méttee métti moo tax sunu làmb nañu daal kaay leen ma xamal leen nag lii nga xam ne nii mooy secret yi nga xam ne nii moom la Eumeu seen jël muy ñetti séance yoo xam ne daal da koy faral di def fan yii bokk na ca maanaam mbàllum fitting maanaam daal daw daw tàngal sa yaram ba mu tàng lool ci gënamu lii nga xam ne mooy géej gi waaye saal ya tamit fàttewu ko mu ngay dem saal nga xam ne moo di musculation maanaam di musculer bu baax a baax a baax ngir forme bi forme bi gën a baax leneen loo xam ne tamit boole na ko ca mooy ay contact yoo xam ne daal contact yu intense la noonu la ko sunu làmb waxe contact yoo xam ne daal metti na ba yegg ci lool ëmma daal fi mu nekk nii kon dafa mel ni moom mu nga ci waaj moo xam ne daal mu méttee métti la jëm ci digganteem ak kii nga xam ne moo di Modou Lo sunu làmb xëy tey wan ñu ëmm seen boo xam ne daal yuuxu na ba sës sunu làmb ci ñëw leneen loo xam ne yëglikaay bi da caa ñëw muy ñoo xam ne moom seeni i combat ñoom itam mu ngi ci yoon di ñëw waaye nag dañ koo gën a avancé maanaam boog dañ koo gën a jege si muy Lac de Guiers 2 ak Boy Niang sunu laam ne na jàpp leen combat bi le 14 juillet la ñu waxoon waaye léegi nag pousse nañ ko def ko le 13 juillet maanaam fukki fan ak ñett ci weeru sulet wi nga xam ne ca la ñu jëm ca la ñuy bëree boobu combat suñu làmb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne sunu làmb ñëw na ci muy combat boo xam ne moom nit ñaa ngi doon xaar kañ la ñu koy tëgg ak kañ lay am muy diggante rëg-rëg mi nga xam ne mooy doomi Caaroy ak Gris 2 mi doomi Médina ak Fass suñu làmb na nag léegi leer na nañ combat ba le 16 juin la ñu koy bëree loolu suñu làmb xëy tey dinu ko wax ñii moom dañoo bëree ba ñàkk muy ki nga xam ne nii moom moo di ambulance bu Thiès ak Laye Pythagore boo xoolee weekend bii day ñoom ñaari mbër yii ku ci ne dañ laa daan bu dee ambulance moom wullee ko xar géppen wulli dee di ko jël sànni ko ca ginnaawam jéggi ko bàyyi ko fa moo tax mu mel ni ki moom fi mu nekk ni daal gis-gisam mooy xanaa génn réew mi voyagé dem yokkiwaat boppam wala dooleem ngir bu ñëwee mën a jàmmaarloog di des ci carrière am laay Pythagore moom kii di ñàkk jariñu moo mel ni ku ko fàqat daal mu def kat appi waaye laay mu ngay leeral nee na deful tey kat appi suba waxi noppi nañu wëri leneen kay waaye daanu moom laay daa jàpp ne buy am xanaa ñàkk daanu waaye man laay moom defuma kaat appi tey suba waxi noppi leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb xam ne nii moom moo di vieux top moom passionnaire rock énergie la moom nag mu ngay wax ci làmb ji ko gën a marqué nee na Tapha Gueye bokk na ci loo xam ne marqué na ko lool lool leen keneen koo xam ne la bëgg ba di leen wax mooy Tapha Senior bu écrit face suñu làmb ne na ko a bëreel daal moom li leer ba leen jët li day nee aw yaramam da koy laaj bu baax a baax a yaramam daal day xesen te ki ko mën a okkal nee du kenn kurul jët li magi sunu làmb xëy tey dinu ko wax weekend bi moom yëglikaay bi sunu làmb ne na jàppale neex na ba yegg ci lool ci mbëri bawal yi nga xam ne ñoo doon bëri ci samedi ak dimanche ji ñëw na ca ñoom carrière explosé ñoom kooña deux wulli wulli waat ak wulli un maak deux ba yépp daal ba ci ñoom sal bawal moom daal jàpp na ne day boo bëggee dégg dëgg moom bawal bawal yi moom weekend bi ñu génne wane nañu seen bopp bu baax baax ci làmb ji ndax nag bëri nañu te daan nañu te ja ca des mooy jël ya ñu daan foo ko takk ci ëgrë yaay weesu na ko sunu làmb xëy tey wax nu ko leneen loo xam ne tam fekk ko fii nga xam ne nii moom moo di la tribune mooy dubul matar ak fëgg la seenub laalante bërki dem ca Iba Mar Diop daal xawoon naa yëngu ba yegg ci lool ñeneen ñoo xam ne moom laala dina am seen diggante la tribune wax nu ko muy Pape Ndoy Papa Yadd mu mel ni ki nag Assane Ndiaye jaarate foofa daal comme moom yaram mu day xesen moo tax mu jël ñaar ñooñu bëgg ñu wokkal ko la tribune xëy tey dinu ko wax drapeau chef de l'état moom a am mooy fii xam ne mooy ca mbuur moo tax nag Maysa Ndiaye ma nga xam ne mooy président CRC bu Thiès day mu nga xëy di wax nee na daal ñoom mu nekk nii ngir lépp lu ñu ñu def ko ba mu mët sëkk ba daal ku fa ñëw di nga xam ne drapeau de l'État bu mosee am tamit bii ñu nar a organiser ñoom dina wute ak yi nga xam ne ñoo daan am may sa njaay xëy tey di ko wax waaye loo ci mën a dégg taala njaay li ma la mën a xamal bu fekkente ne bool bool yi moom weekend bi dañoo wane seen bopp loolu la waaye mën a wax moom bëre fulla moo koy def ak fonk la ngay def entraîné ba ne ca ñaan lu ànd ak ñi nga war a àndal loolu daal defe naa ne mooy gàlla jimbir war a yor mu gën a wóor lool ci moom waaye li jara wax te jara wax taala tey ay lunettes la xëyee taala lunettes yi bees na te weex dooma ci may xanaa ma sol maaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen baax di leen ziar di leen jaajëfal si ànd bi nga ànd ak ñun ñu ñëw ak yéen ci seen revue de comme chaque jour ni ñu koy defee ànd ak kan mag sama xarit Babacar nuyu naa la. ay lay fay ah, sama rak sama xarit di la nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm ko saaxu si yow ah. di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci Leewtoo TV fu ñu mën nekk si àddina bi rek. xam nga di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla buur bi rek mu defal ñu jàmm ah. waaw comme niñ ko xamee waaw. ñu jublu si li nga xam ne mooy jàngat bi ak euh, Eumeu Sène mi nga xam ne sunu lamb andi na ko andi ay secret yi mu nekkee mooy euh, musculation beeg euh, contact beeg footing bi bàyyiwul dara daal pour li nga xam ne ni mooy Modou Lo. waaw moom loolu boo gisee tamit ah loolu mën nañ ko comprendre parce que li tax ñu mën ko comprendre mooy que bés bu mag lay waajal te bés nag boo koy waajal bés ba na mu toll rek selon yow noonu nga ci war a duggee ku ne xam na ne couronne roi des arènes moom moo xam ne actuellement Eumeu Sène te Modou Lo daanoon na ko ba pare tey mu nekk euh, Pikine mooy ki nga xam ne actuellement bu ñuy wax ci ci ci làmb moo jiitu moo ne ca kaw loolu yàlla suñu borom moo ko def ay rakkam a ngi topp si ginnaaw ñoom Ama Baldé ak ñoom Boy Niang lool nag yëpp nekk ay mbir yoo xam ne ni tey boo ko dajalee yaakaar naa war na tax bés bi mu jëm ni mu jaral ko footing jaral ko def musculation jaral ko contact contact yu intense parce que tamit nag ah euh, jar na ko te lu ko jara ko jar parce que tamit tey li mu bëgg mooy garder couronne roi des arènes roi des arènes que mu si doog a bu ak Modou Lo mu li mu bëgg mooy daan Modou Lo pour jël li nga xam ne ni mooy revanche yooyu nag boo ko dajalee ak yeneen ak yeneen di nekk si biir yëpp yëpp yëpp dina la jaral yaakaar naa ne nga contact ba onze nga def musculation ba say muscule taxaw mais di footing ci booru géej ba sa cœur bi sa xol bi maanaam cardio bi normal parce que tamit loolu c'est très normal loolu muy def noonu parce que loolu mooy tax combat ba doo ca ñëw ñu ne waaj a Euh, physique bu doy ak yu mel ni ki noonu waaw. ñu jóge ci combat royal bi dem si combat bi nga xam ne ni moom la ñuy xaar diggante kii di Boy ña ak Lac de ñu jàppoon ko mois de juillet mais fu mu toll nii ñi ñi xamal ni indi nañ ko ba le 13 juillet au lieu de date bi ñu jàppoon xaare ñu jóge ci combat royal bi dem si beneen combat boo xam ne moom la ñuy xaar mu dox diggante ki nga xam ne nii mooy euh, Lac de Guiers 2 ak euh, Boy Niang mu nekk combat boo xam ne dañ ko pousse ba le 13 juillet incha allah. waaw parce que le 14 la ñu annoncé comme date bu njëkk ba fa la waxoon ne ci lañ koy bëree mais actuellement tey dañu xëy gis ne que bi wàcce nañ ko ba le 13 juillet kon benn fan lañ ci 14 euh, ak 13 la kon dafa gën a jege si waaw li si am solo nag mooy que ni combat la boo xam ne sénégalais ñu ngi koy xaar amateuru lamb ñu ngi koy xaar parce que bis la tamit ci bés bi parce que enjeu bu am si Eumeu Sène Modou Lo enjeu bu ko raw am na si diggante Lac de ak Boy Niang parce que xale la boo xam ne moom Boy Niang bi mu duggee géej waay ba tey taxawagul nangu na génn Lirou Diane sax noonu na fi kii arrêté ra Boy Niang ak géej waay <laughs> loolu nag xaw ma Lac de Guiers lay doon xaw ma parce que moom nee na la koy arrêté Lac itam fi mu nekk nii li mu bëgg mooy da ko bëgg a def loo xam man wan ko daal man ah du ma koo xam ne dañuy xale day jàng ci man yéeg yaa ngi dégg te maa lay freiné biir géejawaay booy nag itam fi mu nekk nii li mu bëgg mooy jàll ci kaw Lac de Guiers pour wuti leneen moo tax moo lay wan ne combat boobu combat en kese kese kese la encore une fois ñuy nuyu promoteur bi Baye Ndiaye di suñu frère di ko ñaanal yàlla journée boobu moom tamit ak journée promoteur yëpp ah ndam ak réussite rek am ci parce que promoteur yi may faral wax rek ñoom ñooy bëru làmb ju ay sa beneen combat boo xam ne Babacar euh, amateur yaa ngi ko doon xaar boobu ba léegi muy dox euh, diggante Reug Reug ak gride 2 finalement jàpp nañ date le 16 juin la ñu annoncé pour combat boobu am pour ñu ko doon xaar nag. waaw loolu tamit combat la si combat yi de parce que combat gride 2 Reug moom ñëpp a ngi koy xaar kon bu ñu nee léegi jàpp nañ date bi pour le 16 juin ah. yàlla nañu ko fekk rek tal ko loolu dina arrangé mbëri dina arrangé écrit ñu bokk parce que ku ci ne di nga xam léegi nag planning bi ngay liggéey nooy planifier sa entraînement ak noo koy tegee pour que mën a dem ci bés yi parce que boo nga ne deux mois rek moo ci des. koor ci diggante bi waaw voilà kon après korité ba lay doon wala après koor gi. nag euh, mooy que ni Luc nekk na promoteur bi nga xam ne moom tamit promoteur bu ndaw combat yu coow li mën naa bëri mais li leer ba leer moom xam na kañ la koy tëgg heure bu mu koy tëggee parce que tamit du gan ci làmb te lu mu tëgg événement la koy def parce que moom yàlla may na ko technique boobu kon jàppal ni Gris ak Reug Reug moom ñi ko doon xaar kon le 16 boobu nañ ko jàpp ci mois de juin muy combat boo xam ne tamit li ma la rek gis nga combat yooyu yëpp yi angel ndax boo xoolee Gris 2 ak Reug Reug dégguñu mu ñël te ndeysaan li neex ba neex wala li nar ba naqari mooy bés ba dina am ko dégg mu ñël ndax faw seen bëree jeex bu ñu bëree ñoom ñaar daje faw am ko daanu ndax xalaatuñu fa ay niil ak yu mel ni ki noonu combat bu neex a neexan moo nekk noonu ñu ci profité tamit di nuyu raay ba euh, di ki nga xam ne moom mooy gérer lépp lu jëm ci wàllum lig Nicolas Enko waaw. Babacar euh, ñu jóge foofu dem si combat yi nga xam ne amoon na ci weekend bi mooy euh, Laye Pythagore ak ambulance ginnaaw bu ñu bëree pare ku nekk nag ñëw nga wax nga nga xam ne nii moo nekk ci yow kii di Laye Pythagore nee na nanguwul ba tey ni def na gàtt appui dafay contesté li nga xam ne ni mooy décision boobu la arbitre bi joxe. waaw loolu moom defe naa ne kenn du ko ko tere et ku ci xuloo moom tooñ ko parce que moom moo doon bëree. moom la arbitre rek déclaré ne moom moo daanu moom mu gëm ne daanuwul yaa ngi dégg loolu nag euh, image yi mu ngi fi am na loo xam ne ñun tey duñ ko commentaire l'essentiel que li ñu mën a tey xam daal mooy que ni arbitre se la met di terrain te ci biir gi bi action bi amee ba ñu tàqalikoo arbitre dafa décidé ñaqe jëriñu naka moo daan parce que laay boo xoolee action moom dafa jógoon di xeex seeg ñaq jëm ci kawam te bi muy ñëw ñaq nga koy répondre ak xeex ba nga xam ne nii nag jële bi baaxul mu wàcc ci diggante boobu nag li fa am fa amee moo xam def na carte appui wala deful carte appui mais actuellement moom ñu mën a goo jàpp ba leneen di am mooy que ni ñaq jëriñu daan laay Pythagore loolu mooy li nga xam ne ni moom lañ mën a xam des nag mooy que ni moom am na entourage am na écrit ñoom nag am nañ yeneen yoon yoo xam ne nii CNG may na leen ko yooyu am nañ droit jaari ca contester seen verdict. comme recours rek ku mu neex nga déposer recours contester verdict. au niveau du CNG loolu moom ñoom la kenn du leen ko aaye ñaq nag actuellement moom muñ déclaré vainqueur yóbbu na drapeau bu dee la carte ambulance tamit gis nga. moom de nee daa bëgg dem euh, li nga xam ne ni mooy euh, voyager génn dem extérieur defaruwaat mën a ñëw andi forme boo xam ne ni dina njootu ni dina si mën a wóyal carrière am. waaw olof ne nag ku xamatul fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon tubaab bi ne nu ko tubaab làkk ci en français ay satu ah pour mieux sauter il faut reculer ah. du noonu la reculer pour mieux nañ ma jéggal kon loo si mën a dégg daal moom ambulance. comme li ma waxoon keroog laay waxaat rek dama yaakaar ne dama gis su nekkee Thiès ci di bëre fi lay gën a nekk ci lay gën a lucidé ci lay gën a nekk ak mais dama seetlu combat yi mu bëree Dakar yëpp boo xoolee contre euh, ki nga xam ne moom mooy euh, kële caat bu booy bambara gis nga keroog na mu ñàkkee combat ba combat ma armée bu benn baraak bërki dem moo ko wulli wulli wulli dë loolu nag war na ko xoolaat bu baax baax bu fekkee ne xalaat na ne voyage moo ko ko moo ko koy may kon na dem parce que mag mu yaa xam ne la ci yaa xam fa xalaat na ne foofu su fa demee xelam mën na dikkaat bu dikkaatee mën na wanaat beneen ambulance loolu itam ay supporter dañ ko soxla wala lam dañ ko soxla ndax xale la am na xorom macha allah mën na fecc mën naa bëri te it ab dëkk ne ci ginaa am ab raison lëmm kon yaakaar naa ne war na ba lay duggaat ci làmb moom mu xalaat boppam bu baax a baax a baax waaw. waaw reculer pour mieux sauter moom fii lañ ko fekk te dafay tax nga incha allah boo dellu see rek nga mën a andi loo xam ne dalal na xelu supporter yeeg yëpp ak dalal sa xel yow mi nga xam ne nii tamit euh, yaay compétir da ciy baax Babacar ñu jeexal ak euh, Meyssa Ndiaye moom mi nga xam ne mooy. Euh, président CRG bu Thiès Meissa moom nee pare na pour relever défi parce que euh, drapeau chef de l'État foofu lay amee ci région am. waaw ci région am lay amee muy au niveau du Mbour. loolu nag Meissa moom tamit ñu koy nuyu di nuyu CRC bu Thiès yëpp ah loolu moom défi la parce que drapeau bi la plupart boo xoolaan bu ñu organisé ci région bi ci capitale bi ko doon yóbbu comme tey bu ñu nee maanaam ñu di ko Thiès bu ñu ñu yóbbu ko biir Kaolack mais pas ñu yóbbu ko ci département la mais bii nag yàlla dafa dogal ñu indi ko ci département de Mbour kon ñoom itam yaakaar naa buñ gondee Mbour war nañu fa mën a relever défi bi comme ni nga koy ñaanal mu réussir ko parce que euh, Petite boobu dafa bëri ay champion yu fa dëkk parce que Bombardier mu ngi Mbour Yékini ci Petite Côte bi la nekk ñoom Assurance ñoom Pakala ay Tyson 2 booy lim doo fi jógee kon yaakaar naa bu ñu ba drapeau chef de l'État delloo mbaat su ci ndaali rek parce que normal la parce que yàgg na ay roi des arènes nga fa tëdd wala ñoo xam ne déggu nañu ay roi des arènes xam nga kon yaakaar naa daal ñu leen di ñaan drapeau boobu ñu commencé ko bismillahi rahmaani rahim bu ca yeggee mu jeex ci alhamdulilahi rabil alamin que le meilleur waaw man nag Jurbel laa dëkk waaye daal loo ci mën a déggee ndax raison de Jurbel laa bokk mais c'est pour tout waaw euh, waaw c'est pour le Sénégal quoi waaw mais li nga xam naa dina nekk lu war a mën a neex quoi ñu ciy profité di nuyu waa Mbour yëpp rawatina ku mel ni sama xarit Basoka nekk fële ci Caroline du Nord ci États-Unis d'Amérique waaw. Euh, yi suivre Leewtoo TV li lañ leen andiloon tey ci seen euh, jàngat ñu leen di jox rendez-vous suba mais balaa boobu dañuy jaajëfal Mame Talla suñu Baye Fall bi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ni rek ñi ngi béggee Leewtoo TV parce que yéenay suñu doole comme ni leen koy waxee chaque jour di ngeen seetaan di ñu critiquer ñu mun a changer di leen ñaanal jàmm ak salaam bu euh, di leen ñaanal xéewal bu bëree bëri bëri mais tey Babacar di nuyu sama yaay ñoom euh, tante Ami Sougou ak euh, tante Marème Sougou ma leen ñaanal gudd fan ak wér di samay magu yaay ñaawal nal bu bëree bëri bëri ki nga xam ne ni mooy taxaj sugu di seen mag moom it euh, yàlla def euh, mu teel a wuy ji boromam dañ koy ñaanal fa mu nekk rek gënal ko fi mu jóge di ñaanal ñi fi yàlla bàyyi gudd fan ak wér tey nag di souhaiter joyeux anniversaire sama seexu yàlla yooyu Dial ak euh, Marème doomu Aïcha ñaa dund leen ba teral seen waajur sama sang bu baax boobu am na solo ay mu ngi lay nuyuwaat encore une fois di la fay rek di nuyu sa mbokk yooyu yëpp ak kim ni nga ko waxee ñi ñuy tamit seen fay parce que ki nga ne mooy jënd connexion bi yor téléphone am di la suivre kooku amoo loo koy fayee parce que tamit euh, ki lay seetaan yaakaar naa ne kooku moom kenn mënu koo fay lu lu lu ma def mooy ñaanal leen yàlla yokk seen kàttan barkil seen liggéey. parce que tamit loolu moo fi nekk rek di leen nuyu ñoom ñëpp ah mais du ma fàtte ki nga xam ne ni moom mooy euh, Ousmane Diop euh, Mame Modou Gueye Tall bi Serigne Mbaye Sy Abdou moom ñoo ñëpp dañuy suivre ah. bu ñu leen dee lim duñ fi jóge mais ñoom ñëpp tuuti yaay Sarr maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax euh, Khady Rose Ndiaye wala Khady Ndiaye Rose moom tamit di sama rakk maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye tamit di nuyu képp ku nga xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo TV mais Pape Diom di sama doom baay nekk ba États-Unis d'Amérique maa koy nuyu baax a baax a baax nekk fële ca New York maa ngi koy nuyu mais gis nga tey lu net taala moo ma jox tey taala tey ay veeram la fi indi waaw taala ay veeram la fi indi di di wax tamit benn xibaar boo xam ne nii lu metti la muy benn mbër boo xam ne dañu gis tey ci soo bi ñu yeewoo nekk dafa wàññeeku ñu koy wax diiwaan nekkoon école it Falaye Bal te yàlla def at yëpp mu nekkoon États-Unis loolu dégg nañ ko ah euh, dañuy ñaan yàlla bu fekkente ne loolu ñu dégg lu am la yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana waaw parce que tamit àddina moo demee noonu yàllaa ko waxoon te yàlla ay waxam du dañ lu nafsin saa yu xatin mawtin fa kullu man alayha faniya ku juddu da nga faatu lu tooy da nga mas a wow ki dem ñàkkul fulla ki fi des njàmbaar bàyyiwu ko fi kon yàlla na yàlla guddal suñuy fan ñu ñu fi des barke li ñuy def te jéggal ñu suñu ay rëcc rëcc ndax loolu rek moo fi am di wax ne que xol bu sedd yaram bu sedd yàlla na ko yàlla def ci Sénégal ci loolu lañ leen di joxee rendez-vous suba incha allah.